ñëpp bëgg nañ doon sàmm waaye ñaari mbir mu ngi ci benn mbir bi mooy wol de bi il faut yow ak ministre de la justice ngeen toog seen nuñ ko régler parce que wol de bi li ñuy perdal dafa bari te léegi wol betaay bi dafa dem ba nga xam ne dañuy jël sa jur lakk ko ñu ne la indil ñaar fukki junne ñu jog la sa fas wala sa nag boo demee moo jog nañ ko ñaar fukki junne bu ñu ko woowee gendarmerie mu joge fukki junne yi ñu bàyyi ko yow yaa jël noonu cent mille mënatoo am feneen il faut ñu seetaan loolu ñu jël ci matuwaay bi si des monsieur ministre organisation sàmma yi il faut nga jël matuwaay recensé parce que organisation boo xam ne duñ ko mos a te lu ñëw ñu ne ñëw leen sàmma yi ñoo ko moom te ñooñu amuñu kar amuñu béy loolu mar na war nañ ko mën a sensé ndax sàmma yi nga xam ne dañ ciy dund di ci dundal ay nit ñu mën a xam ne ñu mën a àgga ci ñoom parce que su fekkee ne affaire bi bu ñu wootee ay organisation la ñoo teg ci kanam ñii sàmm ci àll bi duñu dem nekk ci kanam te duñ am accès bon duñ mën a am réalité li nga xam ne mooy régler sàmm bi man sàmm laa nag sàmm bu leer nañ laa moo tax ma nekk avocat sàmm yi parce que nag fi nga amee teraanga nga màgg ci loolu nga mën a défendre te li nga may wax dama koy jëlee ci argument bu leer monsieur ministre il faut nga woo organisation bi ñu renouveler ko ci ay conditions yu leer bokk ak règlement intérieur réew mi nga xam ne sàmmay dinañ am accès bu si des monsieur le ministre ngeen xam nawet bi baaxut ngeen gaaw ci jël matuwaay nawet baaxut gis nga li ñuy wax mbéy ñag mii man géew ma ko de xam nga ni tax géew ma mbéy am ñag bi ku am ñaari junne kar am ña junne nag kooku mënoo béyal ma noo béyal ñag bi parce que ndog bi boo fan nga koy génnee ci moyen il faut aussi ñu xam ne loolu il faut ñu jël matuwaayam parce que ku yore fukk ak ku yore junne mënuñ leen yemale parce que ay tracement tracement tracement il faut mu am parce que ñag bi neer nawet bi saalum bi dey kat trop nawet bi jolof mooy yaatu samay dañooy daw parce que bu nekkee ci saalum toujours ñu ne borom tool dañ leen tooñ borom tool dañ leen tooñ te borom tool yi ñooy tooñ sàmma li tax ma wax ko am naa ci argument damay béy damay sàmma kenn mënu fii béy te amoo jur kenn mënu fii béy te amoo jur bi si des mooy sàmmay seen bopp dangaa war a collecter sa tool waa collecter wuñ tool yi te dangaa gis ku béy ci caawa dangaa gis ku béy ci caawa buñ la yàkkalee nag nga ne borom jur bi moo tooñ il faut ñu seet monsieur le ministre ñu jël ci matuwaay jël ci ay CDD waxtaan ci sàmm yi nekkee côté béykat yi nekkee côté jama mën a am ci réew mi en tant que loolu amul coow mënu fii jóge